Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. kaddu gi euh, Diado fii ci studio Alioune euh, Momar Lo euh, taaxum kaw ma ñu duppe Cheikh yi Maam Assane Cissé mbokk yi salaamaaleykum dale nag jàmm ci xibaaru wolof yi bu ngeen taaxirloo rek ma jukki leen li ci gën a fës li gën a fës ci xibaar yi nag bokk na ca amati na nag ab wéy ci kanamu àddina bi yëpp moom imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Cheikh Seydi Alioune Cissé ci atam 2022 bi nag moom la ñu tabb rek jox ko ñaar fukk ak ñeenteel bi. placé ci juróomi téeméeri euh, personnalité yi gën a ràññeeku ci àddina daj wërngal këpp loole itam bu ngeen ñu toppee dañ ca dikk ci biir euh, xibaar yi euh, gréewu ñetti fan nag la ñu xàppati rek ni ki démb ñu ne itam nag bu jeexee te nguur gi àddiwul jëmale ko ca seen i ay revendication loole nag daañu ko dàbbaliwaat ñoom ñi di travailleurs municipaux yi nee ñu nag guerre day safa mondial tax na itam bi yoon li di service minimum sax amaluñu ko ca mairie bu Kaolack bi loolee itam askan wa jot cay dund ay jafe-jafe ndaxte nag mënuñoo lijjanti wenn këyit ci jamono joo xamee ni itam ne syndicat bi di ànd gësëm ñoom itam nag ña ngay amal ab gréew gréew boo xamee ne si ne gréew national la ñoom nak jot nañoo amal service minimum waaye nag lañu bëgg rek jamono jii mooy nag ñu fay leen seen indemnité de logement ak de risque docteur Moustapha Diakhaté moom nag mooy seen secretaire général ci banqaas bi ci kaw Kaolack daañu ko dégg ci biir xibaar yi ñàkk xam nag la mu waral bari na xamoon nag ak Serigne Boub ni mu def rek ba jotee eh, ci cœur de ville bu Kaolack bi di nga ñu may jàmm ba noppi itam nag noppal ñu lu ni mel nag du samay kaddu moom mbay Ngom directeur général ba moo ko xamle ñoom nag waa direction baag waaye jëfandiku ya nee ñu daal dootuñu nangooti nag ay sos ak it nag kenn di leen attaqué ci wàllu loo xamee ne eh, tegewul ci yoon cœur de ville nag la ñu bëgg rek waaye politique yi yàbbi ko loolee itam dañ ca dégg Cheikh Babacar Dieng Pape Mademba bi tey mu nekk nag député eh, coalition Benno Bokk Yaakaar wala benn gelum loolee nag amul benn wuute ah, benn la mu ngi mel ni rek mburu foofu ko fariñ ndaxte itam taxawaay bu ci kii mën a amal ka ca des itam ah, mën na ko lu ni mel nag ñi nga xamee ne ñoo di ndaw crème yi ñoo ko xamle gannaaw démission bi mu def ca poste a ah, député mba bu li lépp yembe bokk yi daañ ca toftal yeneen i xabaar moom Serigne Moussa Kane moo féetee ci wàllu xarale gi Frim Payce gi bu nees ci Sénégal. Le journal Ngoné ci euh, kaddu gi euh, dalee nag jàmm ci euh, xibaar yi dañu koy dooree nag ak wàllu ay yoon Mamadou ma nga xamee ne moom nag la bàyyi siis rek yóbbu woon ca kanam yoon te nag doon ko toppee wàllum abus de confiance ci lu aju nag ci liggéeyu chantier bi di Six Plaza moom nag bu ñu sukkandikoo ci kaddu suñu ndaw lii di soxna Ndeye faatu Cissé ma nga ñuy xamal ne li ki démb nag tribunal bu grande instance bu Kaolack bi da ko féexal maanaam daal dañu ko relaxé toppeetuñu ko dara loolee itam du jomb dañ ca dikkaat ci suñu yeneen jotaayu ak xibaar. xibaar yi si Alfayda. ñu euh, daal di kon ci xibaar yi daal di addu ci loo xamee ni euh, junjur nañu leen ko euh, comme nag na ko mairie yëpp defee ci biir réew mi Kaolack itam nag deltuwu ca ginnaaw niki démb nag la ñu door seen gréewu ñetti fan ba ñu doon junju ñoom travailleurs municipaux yi gréew boobe nga xamee ni itam ne soobu nañu ci nag nee nañu itam duñu bàyyi rek fileek nguur gi nag adduwul jëmale ko ci seen ay revendication nar nañoo banque seen yoxo bañ a fas faslante xànc ak morom mi Cheikh Tidiane Diagne juróom benn téeméer ak ñett bokk moomeel moo am ci réewum Sénégal Kaolack nag li fi xëy ci lim mu ngi toll ci ñetti téeméeru agent bu ñu sukkandekoo ci kàddu yi nga xamante ne nagu nañu ko ci biir bokk moomeel bu diwaanu Kaolack liggéey amu fi niki démb mairie bi daal di wéet lool loo fi dégg muy sab sax ak picc la bu weesoo syndicaliste yi nga xamante ne ñu ngi leen fekk ñu toog ci ron garab gi Cheikh Tidiane Seck mooy secrétaire général SATCOLS ñu tàllal ko suñu waxukaay. état boo demee archive service des recettes les kenn kenn nekko fi travailleurs sax xëy si wuñ tey parce que lii c'est une préoccupation majeure de tous les travailleurs municipaux tous les travailleurs yi nga xam ne dañu nekk fii comme dañ leen a affecté feneen perception fu mel ni trésor fu mel ni santé fu mel ni domaine inspection du travail ñoom ñëpp tey ñu ngi ci grève ñetti fan la ñu tàmbali ko niki démb mu war a jeex aljuma bi ñu dégmal waaye dina dem ba altine ndax samedi ak dimanche di li ko waral nag du lenn gi ñu am ci seen xol nag a war a yokkal seen i ndàmpaay. parce que njaboot gi njabootam la maire yi démembrement de l' état la ci état la bokk. su problème bu mel nii amee état dañoo jàpp ne solution bu moom moo ko war a parce que xeex la pour non seulement ñu respecter àq ak yelleefu liggéeykat yi li ñuy réclamer suñuy droit la. joxeñ baaraamu tuuma dëgg sax leen ci def état bi nga xamante ne moo nekk ci réew mi ñu laaj leen nag lu ñu mel ana moo ci paaru ñi nga xamante ne ñoo jiite bokk moomee li ci réew mi Cheikh Tidiane Seck secrétaire général bu Satkolsu di ñi ci gindi. liñ xam te texte yi wax ko moo di ne yokk-yokk yi ñi ko war a fay mooy les mairies mais ñi ñëpp seetlu mooy am na ci mairie yoo xam ne tey ku leen bugg a fay loolu mois de mai juin juillet août nee nañ ñoom mënuñ ko donc kon état dafa war a taxaw taxawaayu njaboot njabootu ñëpp donc trouver ñu solution solution bi mooy texee ba quatre mois yooyu nga xam ne ñu koy réclamer moom mu fay ko su mook maire yi ba li ci des continuer lu nekk lu ñuy waxtaanee. ñu ne nag bu fekkente ne gouvernement bi amul benn réaction boo xamante ne def na ko fii ak ñuy noppi ci seen grève bi dinañu ko dàbbali bu altine jotee ba yeneen i bés ba ñun ci dara. li mooy danañ ko renouveler waat fekk ñuy jot li ñu laaj. grève boobee nag ñuy amal Cheikh Tidiane Diagne ñoom nag liggéeykat ya ñu ne neexu leen benn yoon waaye nag dafa fekk ne amuñu ca pexe ndaxte noonu rek la ñu mën a def nag ngir la leen métti itam ñu digaale ko kooku nguur eh, gii nga ne lijjantiwu leen boobaak léegi ñuy joytu seen i ay jafe-jafe lu ni mel nag Abdou Ndiaye eh, secrétaire général national bu synthèse moo ko xamle eh, jëmee ca wàllu doxalin wa ci micro Cheikh Tidiane Diagne. waaw fii li fi nit mën a gis kooku yomb na mais population baa ngi nii daan nañ sax def comme ni ma ko annoncé woon yàlla dimbale nañu si que cette fois ci service minimum du am parce que bëggoon nañ sax doxal yërmande mais nag aussi li wax xale yi di wax naan guerre sax na nga ñëw fi am sa néew bu ko wàññeeku gis nañ fii de trois personnes bëggoot certificat de décès mënuloo ko am tout simplement parce que agent yi dañ dem grève grève bi nag ñun du suñu coobare bëgguñu ko woon def mais dañoo pousser à ce ñu dem grève parce que pousser ñu dem en grève mooy lan mooy ñun ñu déposer préavis de grève pendant un mois kenn woowuñu toog ni nañ waxtaan pour ñu xool naka la trouver situation bi loolu amu ci ñu def marche marche bi réussir ñëpp suivre ko région yëpp 29 des codes des collectivités territoriales bépp avantage boo xamante ne bi fonctionnaires yi am nañ ko ça s'applique d'office aux agents des collectivités loolu c'est clair waxuñu nañu yokkal nañuy demandé mooy nañu appliquer la loi loi bi ñoom ñoo ko voté mais jusqu'à présent rien n'a été fait grille bi aussi le ministre Omar Gueye sortant en personne moom moo joxoon Abdou Khadir Ndiaye le directeur du centre qui est maire de Gaaya mu defar tableau bi faale naa sama bopp nit ki bu la nee yow doo dara bu mu la naqari wan ko ni ko dara nga li ñu wane ni dara lañ mooy lii tëj nañ mairie Kaolack depuis ce matin ba léegi kayit mënu fi am agent yi sax far sax ñoom ñëpp a toog seen kër kenn ñëwul fi parce que loolu la ñu waxoon toog leen seen kër bu kenn ñëwul donc loolu aussi tam sant yàlla la 72 heures la renouvelable nag mais nag après nag l'intersyndical ba apprécier am ngeen ni nga ko déggee ñun noonu ko déggee ainsi de suite Omar Gueye nag wax dëgg yàlla xëy na peut-être beneen affaire moo tax mais bu dee cadre liggéey rek la gisuñu woon lu tax ñuy wàcc Omar Gueye kii moom xaw lu wax ko waxul man te parce bu waxoon dinaa ko dégg du téléphone du toog du jataay du dara kon donc mënu wax ni lii la wax mu nekkoon ay kaddu yi Abdou Ndiaye grève boobee nag ñu sumb maa leen ko doon wax am na ay jeexital yu métti métti ci askan wi maanaam daal impacté na askan wi gaar nag lépp minimum sax ñoom liggéeykat ya dañu ko lànk Cheikh Tidiane Diagne am na ñu mu fa dajal ci askan wi ñu taataan seen yay kàddu Paa Ibou bi tey dama ñëwoon mairie pour extrait pour mën a déposer casier judiciaire boo xam ne dafa war a dem Dakar suba suba suba suba suba pour ay demandes yu muy déposer mais ma ñëw mairie ñu ne dañ nekk en grève bon ñaawlu ko trop parce que vraiment bu fee personnel bi dix lañ cinq yi mun nañ dem en grève cinq des fi jéem ñu dimbale ñun quoi parce que ak nu mën di demee rek ak luñ mën di grève rek ñun ñi nga xam ne ay citoyen lambda lañ ñun vraiment teguñ leen yenn yi ñuy teg parce que fu mu nekk nii danañ handicapé ñi dañ war ay dossiers yoo xam ne nii pour ñoom la

woon grève bi. yëguma ko woon yëguma ko woon fii laa ko yëgee damaa ñëw rek ma laajte ñu ne ma dañoo grève xanaa ma dem rek ba saa yu grève bi jeexee ma ñëw urgent na parce que ñi ma koy laaj moom dañ koo yàqamti mais nu may def ah dina ma yàqal dara parce que damaa war a déposer pour ñu jël ma pour liggéey te nee nañ euh, il faut que ma am identité su ma ko amulee ñoom duñ ma jël ñaanal leen ma yàlla rek ma bañ koo ñaax parce que ñoom liñ ma laaj bu fekkee ne sottiwul duñ ma jël réew mi métti na foo ko natt rek passé na fa fu mu nekk nii kenn mësu koo gis xale yu góor yi léegi jakarta yi dañuy bipp saag rek ki ci ginnaaw moom bu lay réussoo rek pare nga maa ngi nii nag toroxal nañ ma ba ma ne topp damaa jaaxle instant yi ba lundi l'espoir la ñu wax loolu c'est trop loolu vraiment ñaawlu nañ ko rafetul ñetti fan daa bëri daal dafa bëri trop daf lu la neex moo fi am quoi affaire war nañ ko teg si yoon nag aussi vraiment gannaaw nag gréewu travailleurs municipaux yooyu ak njeexital yi mu am ñeneen itam ñuy kaas ci wàllu yokkuteeg salaire ba sax nag seen ak gréew daal di agréé au niveau national ñooñee nag mooy syndicat bi aju ci wàllu wér-gi-yaram gi ñu koy woowee and gëzëm ñoom nag bànqaas bi ci Kaolack itam ñu ne nag respecté nañu mot d'ordre bi docteur Moustapha Diakhaté mooy seen ak secrétaire général jokkoo na ci ak Cheikh Tidiane Diagne grève bi nag tàmbali nañ ko ci une grève nationale mardi la commencé minuit ba vendredi minuit donc ñetti fan yi dañuy grève dañu amoon ay accord ak état bi nekk na ay année mooy augmentation des salaires au donc de la santé comme indemnité donc de risque ak logement bi ñun ñoo ko njëkk posé pourtant yàlla xam na ko mais ñu bàyyi ñun ne ñu xaar xaar amul ñu jékki-jékki ñu defal ko enseignant yi bon ñu nekk ci nekk ci bañ d'accord accord a fanaan war nga

tey ñooñu ku ñu wax docteur Fatou Mbaye Sylla mooy le directeur général de santé mu génne benn note mu ne fay bi ñuy fay travailleurs yi nekk ci hôpitaux yi mu ne ñi mu gën li te te ñii bu nekk guddi bëccëg feebar yu gën a métti ñooy toppatoo malade yooyu ñi bu nekkul ci système bi mu nga am ay médecin am ñëpp mais liggéey bi dox il faut ñu nekk fi pour assister loolu nag moo naqari ñëpp ñoom nag waa ànd ak gësëm yooyee ñu ne daal li leen nguur gi tegal aw ni aw lay nag la ñu mënut warnaasu ba tax na itam ñu ne grève bi naam service minimum am na waaye nag bu saafara amul plan d'action bay ñëw mooy gën a métti gën a tar ndaxte itam duñu jël urgence te it daañu bloqué lépp lu information sanitaire docteur Moustapha Diakhaté Bété ak Cheikh Tidiane Diagne plan d'action nag mooy da ngay tàmbali mais booy gën a dem nga gën a yokk léegi dinañ dem ba information sanitaire yi kenn du ko am dinañ dem ba minimum bi ni ñu def ni minimum xam nga tey ñoo nga fii hôpital El Hadji Ibrahima Niass dem jugg dina na wër pour ñu régler mbir yi parce que nag il faut être humain ñu ne nag léegi ñu mënuñ def ñëpp mais dinañ def le service minimum urgence ñu respecté ko ñu neñ fii urgence boo fi demee am ñu fa nekk ak fu nekk mais dinañ am fu ñu toll même loolu du amati information sanitaire yi yoo xam ne mooy tax ñu mën a léegi di saytu di xam lu xew dañ koy bloqué loolu nag ci état bi la dépendant vraiment lii moom ku ko dégg rek dañ koy ñaaw la xam ne ne kenn xamul lu tax mu bedd ñi ñoo xam ne ñoo gën a sonn ci hôpital bi bi gën a liggéey te gën a néew salaire ñu bàyyi leen ci mi nga a garaaw faj bi mais seen diplôme nangu seen xam-xam ñuy liggéey ñu ñu am augmentation ñu bokkuñ ci non xoolal boobu irresponsabilité yow lu gën a daaw kay bu dee ñii seen njàng mi motul mais bu leen jël bu dee école yi di jàngalee seen njàng mi baaxul bul ubbi école yi tëj ko parce que comme amuñ diplôme d'état yow nga ne diplôme d'état mais depuis quand ñaata nit ñoo formé wu fi ci àdduna bi ci Sénégal te jaaruñ ci état bi partout ci enseignement yëpp ñaata at léegi pourquoi nga dama fii léegi dinañ bëri ci lu xoolal foofu nu nga ko fa tegee rek ak nu mu ñaawee te boo ñëwee fii boo génnee fii hôpital fii ñu fi liggéey ñu xam ne amuñ diplôme d'état bu leen génnee kenn bi des kon yow accepté nga ñoon ñu liggéey nga jël leen ba pare mais nag lu ñu fay nag bokkuñ ci ah monsieur Diagne loolu doy na waar passé na yabaate c'est une irresponsabilité notoire de la part de nos autorités d'une urbaine notoire. Yéen a ngi xibaar yi ci Alfayda 90 point 1. ngeen ñuy toppandi euh, bëccëg ci euh, juróom-ñeent fukk yu tombal benn daal di wéy kon ci euh, xibaar yi direction bu kër de ville bu Kaolack bi liggéeykat yi faak waaye jëfandiku ya ñoom nag jamono ji mer ba futt rek lañu ñu daal di def ndax nag seen daluwaay boobee ñuy attaqué ak jaaba jonge bi ci mujj nag mooy kàddu yi Abdoulaye saw yi ñoom nag ñu ne kër de ville bi daal lañu bëgg nag nit ñi yàbbi ko ndaxte itam ku ko song ci daañu ko digaale ak yow Cheikh doom yi fii ni xaayaat commerçant yi nekkee ci boutique yi ci biir kër de ville ñi liggéeyee ci télévision bi ba ci direction bi ñëpp a daje janoo ak taskatu xibaar yi ñu ne lu tax nit ñi heure bu nekk rek ne attaqué seen daluwaay bi mbay ngoom mu di directeur général bu kër de ville de Kaolack. at ci gannaaw ak weer ci gannaaw ay politiciens ak ay kilifa yi nga xamante ni dañuy diriger ay institutions yu état bi dañu faral di attaqué cœur de ville. moo taxit ni jàpp ne ñuy wax ci cœur ville dañuy bëgg tur ak ku leen dégg waaye ñuy fàttali ne président Serigne bu bëgg ñi mu àndal ci yoon wu leer la ñu jaar ba état bu Sénégal teg pàkk bi ci seen loxo. ni Cœur de Ville dafa doon benn entreprise bu koy gérer buy Saloum investissement développement bi nga xamante ni Serigne boobu mooy actionnaire majoritaire am contrat ak état du Sénégal ci ñaar fukki at ak juróom depuis 2011 te loolu biñ koy xaatim ñaari ministère de l'urbanisme ak ministère de finance ak économie ñoom ñoo ko xaatimoon direction centrale des marchés publics moo validé ñu seetlu suñu bëggee siiw wala suñu bëggee am lu ñu bëgg wax ci Sénégal ñu dégg leen dañuy attaqué cœur de képp nag koo xam ne waxati nga dara jëmale ko ci kër de ville bu Kaolack na nga jàpp ne danga ko diggaale ak liggéeykat yi loola yoonu sëriñ bu nekkut ca ndax ñoom fii la seen teraanga ne bu ci mujj nag njiital chambre de commerce bu Dakar du lay soow moo ko attaqué lii la Mbaye Ngom ñi mu àndal bañ. chambre de commerce bu ci Dakar président bi nekk fa am bilan bu mu waroon fësal pour ñu war ko voté laat parce que xam nañ ni élection chambre consulaire léegi mu jot muy ñëw di attaqué cœur de ville bi nga xam ne mu ngi nekk ci deux cent kilomètres de Dakar c'est parce que kooku dafa bëgg nit ñi dégg ko di fàttali nag bu nguur gi soxlaa ku ko jàppale ci cœur de ville bi nga xamante ni bi ñu tàmbalee liggéey yi toog nañ juróomi at yoo xamante ni dafa taxaw opérateur économique Kaolack jaaxle waa jaaxle sëriñ bu moo nekkoon kenn ki nga xamante ni moom moo ñëw dugal ci loxo pour jàppale état bi moo tax it mbir yi fas nañ ko yóbbu fu mbaxana doonee benn waaye di xamal politiciens yi nëbbu ne nañu dal ndax fii ba deux mille trente cinq cœur de ville Serigne Mbouba koy doxal. di wax ni nag fii ba deux mille trente six incha allah cœur de ville bu Kaolack Saloum investissement développement nekk ci groupe CCBM moom moo koy doxal su fekkente ni tey nag ay politiciens yi nga xamante ni dañu masqué wu wala ay opérateurs économiques yi nga xam ne dañu bëgg defendre seen bilan te amuñu ko bëgg ñëw attaqué cœur de ville bi ñun ñi nga xam ne ñu ñooy personnel cœur de bi man directeur général bi représenté personnel bi dinañ taxaw temm jàkkaarloog ñoom. yoon te dañ leen yóbbu ci yoon ba nga xamante ni sos yi ngay xam ne ñu ngi koy sos jëmale ko ci kër de ville jëmale ko ci suñu président sëriñ boobu ñun duñ ko nangu. lu jëm nag wax ne kër de ville méngoowul ak yoon ku koy attaqué daanaka doxalinu état bu Sénégal ngay ñaawlu ndax mission de contrôle yi heure bu ne ñu ngi fii teg seen tànk tànk. jaajëf Cheikh Babacar Dieng dañuy des ba tey nag coow woowu leen mbir kii di Abdoulaye saw moom jot na fa wàllam rek ci nar wi ndaxte itam yemale nañu ko waaye itam nag daal koy artu à dànkaafu ko xamal ko ko ne ko itam ne kii di Serigne Mboup du moromam du mappandooram ndax it nag vision ba mu am raw na ko lu bare bari mbay Ngom moo ni xamle ko Cheikh Babacar Dieng. Abdoulaye Sow nag nag toog nañ na ŋàññ kii di président Serigne Mboup muy président chambre de commerce loolu gis nañ ko ni dafa bëgg jëmale wax ji feneen ba ñu ñi duñu concentré wu ci Dakar mais nag ñu war ko xamal ni chambre de commerce bu Dakar nga xamante ni moo ëpp budget ci Sénégal te budget bi gis nañ lu ëpp ay milliards dañ ko yóbbu ci fonctionnement maanaam ay payu salaire ak ay voyage loo xam xamante ne amul fenn fu ñu koy justifier loolu du doon bilan boo xam ne war na ko mën a défendre moo tax mu ëlbatiku ci sëriñ bu ne da koy ŋàññi pour am lu mu mën a défendre di ko wax ni nag cœur de ville ñun taxaw nañ temm parce que fii lu toll ak juróomi junni nit ay mag ay ndaw ay borom kër ay jigéen ñu ngi fiy xëy chaque jour di ñàkk jëriñu pour mën a dundal seen njaboot donc président Abdoulaye Sow bu chambre de commerce bu li liñ koy wax mooy mu commencé balee ci buntu këram ndaxte Dakar su mel ni kaw bi nga xamante ni état du Sénégal soxlaa sëriñ bu moo nekk mennum opérateur économique bi nga xam ne jóg na taxaw nga ànd ak nguur gi ne Cœur de Ville tey gis nañ fi lépp li nga xamante ni ñu ngi koy soxla ci jumtukaay ci dëkk yi nekk ñun ñëpp dajal nañ ko Cœur de Ville muy fa xale yi war a foowee muy fa xale yi war a fubalee muy ay boutique ay commerce muy université lépp am nañ ko fii ci ay prix yoo xamante ne yu jéggi dayo la waaye nag loolu soo ko bëggoon am Dakar xam nañ ni di nga dem ci ñett wala juróomi structure yoo xamante ni xam nañ jéggi lu muy jar président Abdoulaye Sow ñu ngi koy xelal ni Touba copier ci Kaolack copier tamit ci président Serigne Loum nan la ñuy doxalee structure nan la ñuy doxalee chambre de commerce ndax 2019 kat ñu ngi koy fàttali bu mu bëggee jël chambre de commerce bu Dakar xam nañ ni Serigne Loum moo ko jàppale woon te moom ci boppam ñëw na fii ci cœur de ville nekk avocat cœur de ville taxaw ci tele bu nekk di wax ay baaxu cœur de ville wax avantage yu nekk ci cœur de ville ak Serigne Loum mu ko gérer tey kooku su ñëwee fii di ŋàññi war nañ ko wax ñaari wax yooyu ban moo ci dëgg te moom bu fi ñëwee am na ay bëri yu nga xamante ni digaale woon na ko ak cœur de ñetti at musu ci def dara di wax ni nawet tey liñ koy xelal mooy moom président chambre de commerce bu Dakar mu dem waxtaan ak opérateur économique yi Dakar yi convaincre wax leen moom nan la liggéey Dakar ba war ko falaat ndaxte fu mu toll nii fii ba 2036 de ville mu ngi ci loxo salon investissement développement bu président Serigne Mbaye ak Ngom gannaaw nag coowal cœur de ville coowal politique bi nag ci la ñu yaa daal di addu gannaaw nag installation quatorzième législature lenn ci ay doomi Kaolack dugal nañu leen ca ñoom nag ndawi crème yi di ay jege ñaale Pape Mademba bi cay amal nañu ab janoo rek daal di cay addu feddali nag seen ak coloré jëmee ko ci seen ak njiit waaye itam daal di rafetlu choix bi nga xamee ne njiitu réew mi def na ko jëmale ko nag ci Amadou Mame Diop mi mu def président assemblée nationale waaye itam Amadou Ba Yélimani jëwrin yi lu ni mel nag Jibril Aw moo ca doon addu mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne dañoo bëggoon andi suñu mbégte ak suñu

aussi tamit ñu gis ne si fan yi weesu le président Macky Sall na njiitu jëwrin yi mooy Amadou Ba ci loolu di féliciter tamit au passage ministre yi nga xam ne ñoom ñoo nekk diwaanu Kaolack yépp muy si département ak si région de Kaolack mais aussi tamit di wax par rapport ak li nga xam ne moom président wax fan yi néew yemoo ak 16 septembre que ne bi muy tabb gouvernement buy dem au la au la boo ko dëggee mooy par rapport ak homme de confiance ak ay homme de valeur la mais aussi ay hommes yoo xam ne ils sont dévoués de compétence ministre yi nga xam ne ñoom leen tam Kaolack yëpp ñu ngi leen di souhaité que mission bu ñu jox ñu mun ko matali en tant ndaw kerem ñëw pour feddali suñu kóllëre ak suñu contentement gannaaw ba nga xam ne président de la république njiitu réew mi renouvelé na confiance am ci doomu Kaolack bi nga xam ne mooy le président Pape Mademba bi te résultat yu mu def ci li nga xam ne moo lañ ko jox kon donc ci loolu dañ ci félicité suñu njiit mooy le président Pape Mademba bi tey di ko wax ne ñun ñi nga xam ne ay ndaw nekk ci ginnaawam xam li nga xam ne mu ngi koy liggéey ci ginnaaw président de la république dogu nañ ngir continuer di ko jàppale pour que mu continuer di doon benn solution ci ginnaaw président de la république par rapport ak la vision énergétique de faire du Sénégal un pays émergent soxal nag wàllu démission Pape Mademba bi tey ca poste député boobee nga xamee ne da koy bàyyee Ahmed Youssouf Bengeloum loolee itam waa CREM ya layal nañu ko nee nañu nag ñoom ñaar ñëpp benn lañu ndaxte itam ay doomi Kaolack yu engagé wu lañu Djibril Aw bi tey ak Cheikh Tidiane Diagne. Pape Mademba bi tey démissionné bu mu démissionné ci poste député jokkoo Bengeloum pour wax ne dañoo nekk ci maanaam donc benn mouvance nekk ci benn tey kuréel bu ñu tënk tey jii le soir a été fait avant par le président de la coalition Benno ko yaakaar en pour que tey jii ku muy tabbu daf lay ci compétence tey compétence Pape Demba maanaam xarañam moom moo ko yebal par rapport ak li nga xam ne moom la population di xaar ci moom mooy le secteur énergie tout naturellement noonu demee xam ne foofu la mun a gën a amalee njëriñ askan bi donc mu dem fa bu nekkutoon compétence am yóbbu na ko foofu yaakaar naa du démissionné tey jii bàyyi poste am député jox ko keneen donc naturellement bi tey mu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar yaakaar naa logique bu mu jël rek ci la jël ànd ceeg moom donc moom te mu ngi tënk ci li nga xam ne mun naa ko àndi ci loolu euh, waaw par rapport ak ça lu ñu doon wax population mooy que dinañ fexe ba nga xam ne tey bu ngeen ñu joxee seen baat dinañ leen maanaam donc tey jii seen i doléance ñu koy dox yaakaar naa ne tey doléance kaw la nekkul na rek si benn nit la war a mën a jógee tey jii ku nekk taxaw tey jël baatu askan bi dem di ko waxal surtout na nga nekk doomu Kaolack bu nekkoon sa amaana jël na ko jox beneen keneen mun nañ ne voilà est-ce que kii dina tey jii waxal waa Kaolack étant donné que nag rakam la kon donc yaakaar naa ne je pense bien que ne voix bu Pape Demba bi tey mun a na ko porté léegi ci wàllu xëy ci loolu en tant que ndaw damay am cawarte pour tontu la ci ndax boo xoolee anam bu ñu tabee ministre yi yaakaar naa ne tey dafay dalal xel présidence ministre yi nga xam ne tey am nañ ci juróom-ñett ministre yi nga xam ne tey ji ay ndaw lañ loolu dalal na xel tax na jàpp nañ ne war na mun a am yaakaar te jàpp nañ ne par force par rapport ak li nga xam ne attentes yi ak institutions yi président de la république joxe képp ku mu tabb ci gouvernement bi di ci nekk yéen ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 ngeen di euh, wéy euh, ba nag di ñu toppandi ci euh, xibaar yu wér te wóor daal wax kon jëmale ko rek ci wàllu njàng meek njàngale mi ubbiteeg lekkool bi nag daanaka li ci des rek bareetul te xam ngeen ne itam ne nawet bi jaar na fi ci ay yàqu-yàqu ak njeexital lu ni mel nag tax na acteurs yi nga xamee ne ñu aju rekk ci wàllu njàng meek njàngale mi fii ci diwaan bi di soññu askanu week mairie bi ngir nag ñu bokk rek jublu ci liggéey bi mën a am wàccaay wu mucc ayib laata ubbiteg l'école boobee noo biyaa yaa ci leexal ay fan yi donc moo des ubbite école fi ci Sénégal l'inspection de l'éducation et de la formation bu Kaolack commune mbëbëtam mooy ni gën a taxaw ci jafe-jafe yoo xam ne gis nañ ko ci biir école yi Assane Badji mooy secrétaire général de l'IEF bu Kaolack commune préparé ubbite jàng ci commune bi jouru ubbite école yi école yi ak euh, classe yi ñu mën a set ba mën a accueillir élèves gi ci anam yu sell ci dispositif yi ñu jël mooy école yi nga xamante ne dafa taax commune bi lu ñu seetlu mooy école yu bëri buy taw day am ndox bëgg nañu maire yi ak euh, collectivité yi ñu jàppale ñu pomper ndox bi génne ko bala le troit ñeneen école yi nekk fii ci Kaolack commune yoo xam ne seen toiture dafa mujj yàqu l'inspection de l'éducation et de la formation ak mairie bu Kaolack boole nañ nekk benn ngir indil saafara ci école ñooñu ñu sukkandikoo ci Assane Badji. am na école yoo xamante ne dañoo seetlu ni toilettes yi dañoo màbb boobu bu ñu ko waxee maire yi commencé na liggéey bi fële Medina mu ngi bëgg tabax yeneen toilettes pour que xale yi bu ñu ñëwee ci rentrée bi ñu mën a am fu ñuy tuuree ndox jour ubbite bi mu bañ a nekk élèves yi dañuy ñëw pour taxawaalu ci cours bi waxtu yi ñuy jagle jàngale ni boo ko perte ci njëlbeen loolu dalay rattraper ci année scolaire ci fekkente école delloo nañ ko ci askan yi tax na kilifa yi yor wàllu jàng ak jàngale ñu woo waajur xale yi ñu gën a taxaw lépp yoo xam ne war na tax élèves yi ñu jàng ci condition bu baax. waa waajal condition yooyee nag noa bi yaay dafay am solo ba tey bu ñu waa euh, tënkoo euh, ci kàddu inspecteur bi di baat ji mu yokk ca itam di wax ne ouverture bi nag du mën a effective fu ci mel ni euh, Medina baay ndaxte itam dafay tombeek gàmmu gi te lenn ca l'école yooyee nag nag dafay am ay gan lu may loolu itam dikkaat na ci calendrier scolaire bi li mu ndongo yeeg jàngalekat yi inspecteur Assane Badji ba tey ci micro noa bi ay commune bi 1500 moom la ñu am ci enseignant élèves yi nga xamante ne ñoom la ñuy xaar ci ouverture bi ñu ngi toll ci euh, fukk ak juróom benn junni 66 mille 124 élèves donc limboobu boobu lim bu bari la te école dafa tëj depuis ñaari weer donc balaa élèves yooyu di ñëw il faut ñu jël ay dispositions yi nga xamante ne élèves yi duñ ci am ay gaañu gaañu jëm ni seen wérgu yaram donc moo tax il faut ñu pompe leen il faut ñu désinfecter leen génne ndox bi xale yi mën a commencer jàng premier jour ouverture gàmmu bi dafa tomber ren ci ubbi tëj école yi. waaye année yi passé souvent day tombé ci biir année scolaire bi. situation bu ñu yàgg a dafa concerné wul école yi yëpp. école yi nekk Medina Ibrahima Niass ak CM bi fa nekk souvent moom la sëñ bi di solliciter préfet préfet gis ñu pour ñu libérer leen jox ko ñi nga xamante ne ñëw nañ ci gàmm bi pour ñu utiliser ko ci période boobu waaye tamit euh, buñ paree ci euh, gàmm bi toujours dañ jox ay moyen nettoyer école yi bala élèves yi di ñëw donc situation boobu dina tax ren ubbite bi bu ñu programmer le 3 pour euh, jàngalekat yi et le 6 pour euh, élèves yi dinañ ko toxal tuuti ci Medina ak li ko wër pour ñi nga xamante ni ñëw nañ ci gàmmu bi mën a passé seen gàmmu weesoo ñu woo élèves yi ci semaine bi ci topp. ca loolee euh, ba tey nag ca la ñuy euh, taxaw fexe itam ba yenn ci lekkool yi ñu béy ko defaraat ko waaye itam daal di ŋàcc ndox mi jël matukaay yu ni mel nag doon na lu yitteel lool jamono ji secretaire général bu syndicat bii di SELS authentique bu Kaolack Babacar Kébé itam jaare na ca rek daal di joxe waale xalaatam jëmale ko nag ci ministre de l'éducation bi ñu soppeek ak wutu ay kàddoom noa bi yaay moo ko taataan ñun nag amuñu ay considération politique amuñu ay gis-gis particulier si nit ki Cheikh Oumar la personne ne nous importe peu yitteeluñu lu ñu yitteel mooy li nga xam ne fekk nañu tabax ko amul droit yàq ko daf ko fa fekk ñu tabax ba mucc na peinture mu gën a rafet jëm si kaw ñu ngi koy tàllal loxo di ko invité di ko ñaan di ko oo li nga xam na ko muy fexe ba école

wax ne abri provisoire yëpp a màbb a na ko doon euh, junju euh, gannaaw nag njàng ak njàngaleem ubbeekoom ak tukkeem jëflanteem ci àddina beeg liggéeyam bu rafet ci wàllu euh, diine waaye itam nag taxawaayu leadership islamique bi nga xamee ne am na ko ci biir Afrique sowu jant tax na nag moom imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Cheikh Seydi Alioune Cissé ñu daal di koy tabb nag mu nekk rek ñaar fukk ak ñeenteel bi place ci juróomi téeméeri personnalité yi gën a influente ci àddina bi yëpp ci samay kàddu ak personnelu rajo Alfayda bi yëpp nag ña nga koy ndokkeel te it di ko ñaanal mu jikko. yéen ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM. ñu daal di eh, ñëw nag ci suñu reportage yu eh, bés bi eh, Colobane ma nga ca diwaanu Ziguinchor foofee nag askan waf ñàkkum ndox mu tar nag moo leen sonal loolee nag ay at a ngi nii ñuy jànkonte ki jafe-jafe yu ni mel suñu ndaw Mouhamed Sagna demoon na fa nemmeeku ji leen. askan wi yeewoo ca Colobane ab quartier bu nekk ci commune bu Ziguinchor rawatina ñi dëkke boor juuti bi ñoo ngi jànkonteel ay jafe-jafe ci seen dëkkuwaay. yi. problème bu ñu gën a am mooy ndox bi ku xam ndox ndox mooy nit ndox mooy lépp ci doomu aadama ça fait des années ñi ngi xeex pour mun a am ndox bu baax. mënuñu ko am. ba tax na teen yi nga xamante ne ñoo nekk ci seen euh, quartier foofu la ñuy rootee ndox waaye ndox mi nekk na ndox bi nga xamante ne doy na war lool te li ni mel mën na jur ay loraange ci askan wi. bu fi am ndox boo xam ne kontaanuñu si ndax couleur bi couleur bu marron la boo koy root mel ni kafe moom la ñuy defee lépp ci kaw loolu léegi liggéey sew sewaan yi ndox boobu la ñuy utiliser boo si paree fóot sa yére bu weex foog nga jegi tali boo si paree pour togg walla naan foog nga jéggi tali bi nga dem root mun nga am say doom sax nga ragal pour ñu dem rootal la ndax jéggi tali la neexul daal ñu dëkkee foofee amatuñu benn pexe ba tax na ñoo ngi juuxu wàlloo ñu buggoon nag kilifa yi ñu mun leen dimbalee ngir ñu mën a mucc ci situation bi le kilifa yi nekk si euh, Ziguinchor ñi nga xamante ne ñoo jiitee Ziguinchor du ñoom kese am na des gens de bonne volonté bu ñu munee yéene ñi defaraluñu robinet au cas contraire nu mu gën a gaaw plateau dinañu jël. laata ñuy trouver ay solution ci seeni jafe-jafe askan wi ba tey ñoom ñoo ngi wëyal seen dund cay anam yu metti xabaar yi bitim réew. yéeg si eh, nañu ci ñaareelu xaaju eh, xibaar yi eh, bi ci réew Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf soxna Ngoné xibaar bitim réew dañ koy doore réew bu Niger wax ci lim bu tàkk bi nga xamante jot nañ ko gis ci ay migrants yoo xamante ni ginnaaw bi ñu leen dàqee ci réew bu Algérie lim boobu la mu ngi toll ak juróom-benn téeméer migrants yoo xamante ni jot nañu egg si foofu ci réew bu Niger xibaar yooyu la ñu ngi ko jot ci njàppandalu kuréel gii di AFP ginnaaw kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànk réew bu Niger ñoom moom la dëggal nañ yële xibaar ndax jot nañ nemmeeku ne foofu ci réew bu Niger dañ fay faral di gis ay doomu armée bëree bëri yoo xamante ni dañuy daw làqatu ji ci seenu réew wante lim bi nag moom takk na lool ginnaaw bi ñu leen refoulé ci réew Algérie juróom-benn téeméeri migrants yooyu lay agsi nañu foofu ci réew bu Niger wante kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànk gouvernement bi ñoom dalal nañu leen di jéem a xool ban solution la am ci li ni mel. xabaar yi bitim réew. dañuy dem ba réew bu Gabon wax ci opposant bii di Guy Nzouba ginnaaw bi toppee ci luubal xaalis boo xamante ni moomu ko foofu ca réew bu Gabon ci jamono ji nga xamante ni mu ngi doon tukki ca réew bu Congo Brazzaville ci lañ ko téye ci samedi gi ñu weesu ca frontière ba naam sa jot nañ saytu bagage yi nga xamante ni yoroon na ko ñu jot si gis benn valise boo xamante ni def na alal ju takkoo takk ginnaaw bi ñu ko téye ñetti fan garde à vue foofu ca Franceville jot nañ ko yóbbu ca capitale ba ci waxtu bi nga xamante ni ñu ngi doon xel ñaar ci alal bu takk bi nga xamante ni yor na ko loolu waral ñu ko doon tuumal ci wàllum njuuj njaaj moom nag Guy Nzuba jot nañ ko bàyyi ci talaata bi ñu wees ci ngoon ginnaaw procureur bi mu xoolee nii jàpp boobu ñu ko def teguwul ci yoon wante teewul ba tey ñu ngi koy teg gët ngir ko jéem a xam xaalis bu bari boobu mu yor fan la ko jëli xabaar yi bitim réew Afrique du Sud la ñuy dem wax ci mbir moo xamante ni sonal na askan bi lool di wàllum coupure d'électricité maanaam courant bi nga xamante ni waxtu bu ñu tollu demeetul noonu ñu jot ko nemmeeku ci weeru juin juillet ak weeru septembre bi ñu nekk du sud jamono ju ñu toll nag cinquante pour cent sax mënuñ ko am ci capacité yi ci wàllum production électricité seen réew di Afrique du sud ci jamono ji nga xamante ni centrale ak carbon yi ñoom seen liggéey demeetul noonu ndaxte dañoo amee ay panne wante tamit jot nañ nemmeeku wàllum corruption ak doxalin bi jaarul yoon ci jamono ji nga xamante ni réew bu Afrique du sud moom ci ñaar fukki waxtu ak ñeent yi mën nañ wax ni fukk ak benn waxtu yépp courant moom day coupé naam sax gouvernement bi moom mu ngi def kémtulaay kàttanam ngir kat a courant bu doy. xabaar yi bitim réew. xibaari bitim réew dañ koy jeexal ak réew bu Iran wax ci yenn manifestation yoo xamante ni jot nañ ko fa nemmeeku mbir moom la jot a jur ay doomu aadama yoo xam ne jot ñàkk seen bakkan li tolloog juróomi guddi yoo xamante ni réew bu Iran moom mu ngi wéy di nekk ci tiitaange ginnaaw bi ñu jotee am génnum àdduna ki nga xamante ni mooy Massa Amini boobu léegi nag police bi moom mu ngi def kéemtulaay kàttanam ngir ko jéem a xam ñen ñoo def li ni mel wante tamit jot nañ nemmeeku ñetti doomu aadama yoo xamante ni jot manifestation ak ñoo xamante nii jëlee nañ ci ay gaañu gaañu yu xaw a métti jërëjëf Sana Ngoné foofu la ñu yem ci xibaar bitim réew yi cant ngërëm ñeel na la jaa ngeen jëf. xabaar yi bitim réew. xabaaru ak bàngoog xabaaru euh, tàggat yaram gannaaw nag ba ñu ko génnee rek ci gouvernement bu yees bi xam ngeen ne itam ne ay réaction ak i coow yu euh, bare bari nag daal dina ci juddoo ba tax na nag moom mi di euh, Matar Ba nga xamee ne itam ne moo fi nekkoon ministre de sport gannaaw nag passation de service bi daal dina yëkkati ay kàddu delloo siwaat xelu askan bi waaye itam nag defal leen jëmee ko rek ci tànneefu njiitu réew mi Matar Ba ay kàddoom mi ngi ci micro Arona Niang sama xarit ci sama mbokk yi maa leen di sant bu baax di leen gërëm gis naa nag eh, ku nekk ngi yëngatu passation de service mbiri état la sama diggante ak kii dugg si la ma koy ñaanal mu am ndam parce que boo amee ndam président Macky Sall moo am ndam te ñun ku ñu xam-xam ne xam nañ ñu tey parce que président Macky Sall moo ñu tegoon fi ñu nekk ñu liggéey ci pour mu am ndam liggéey nag bu jeexee dañu war a ànd ak dal continuer di def lu tax eh, ki nga xamante mooy suñu jit di président Macky di am jàmm ñëpp xam na nañ ne bu ñuy politique tey di jóg ak daanu président Macky Sall moo tax ñu di ko def kon nit ñi delloo seen xel te xam ne lu commencé dafay jeex mais adduna jeexul kon maa ngi leen di sant yéen ñëpp nag di leen gërëm di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di feddali sama colère ak yéen di wax it sama engagement ci suñu weti kilifa muy président Macky di maire honoraire dëkk bi du suñu mbokk aussi kon maa ngi leen di sant bu baax. mu nekkoon euh, ay nag wàllu bi ñu dénkoon wàllu sport euh, foofee sax nag lañu ñu koy euh, jébbalee leng yi moom Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngone Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu bokk auditeurs yi di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaar xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ca Wakaam ak xibaar bi nga xamante ni dëggal nañu ko démb club bi nag ci page Twitter am nag ki fi nekkoon na euh, lig de sénégalaise nag di IESO Wakaam jël na entraîneur bi di Moustapha sekk ba nekkoon ca AS Saloum naam sax jaxagul moom Moustapha sax moom la ñu tàbb mu nekk coach bu yees uh, bu US uh, Wakam signé na foofu tamit uh, ñaari at ñu dem ca njaareem Sonacos daal dinay dëggal Sidaat Sarr ci bopp équipe bi di Sonacos mu daal di fay utu nag ki nga xamante ni moom mooy Mbaye ñoo moom mi di Sidaat Sarr nag toftan ci wetam kii di Sassi Ndaw bi nga xamante ni jóge ca jamono bi nga xamante ni yéegal na ko ca national de ñu waxtaanee football ci jigéen ñi nag ginnaaw bi mu nekkee champion d'Afrique ci weeru sulet gi ñu génn nag gulet ci taarixam sud nag daal na am mbébétu samp ndëm nag ngir organisation coupe du monde féminine atum deux mille vingt sept bu ñu sukkandikoo daal ci directeur général bu SAFA di Tebogo Molante ñu waxtaanee CAN handball deux mille vingt deux ñaar fukki édition beeg juróom nag jëm ci championnat d'Afrique des nations féminines ci wàllum handball nag jàpp nañu ko juróom-ñeenti fan ba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre fii ci Sénégal tirage au sort boobu sax dinañ na ko amal àllarba gi ñu dëgmal fukki équipe. ak ñaar des na leen tas ci ñetti groupe groupe bu nekk def ñeenti équipe équipe nationale U23 bi nga xamante ni Demba mbay moom moo nekk ca bopp ba nag jamono ji ña nga ca réew Maroc nag ngir amal fa jongante xaritoo ñaar sax seen diggante ak Maroc ñaar fukki fan ak ñaar ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru satumbar gi ñu nekk ñu dem ca dend ko Europe fa la ñu koy jeexalee ak Ligue des Nations àggale gi nag bëccëg gu njëkk gi tey Croatie mooy laaleek Danemark bu juróom-benn waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom France di laaleek Autriche ci boobule waxtu Belgique diraale ak pays de Galles ci boobule waxtu Pologne diraale ak Pays-Bas Turquie diraale ak Luxembourg Lettonie di dalal Moldavie bu ñeenti waxtu jotee Slovaquie diraale ak Azerbaïdjan bu juróom-benn waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom mangook ngoone jaay gannaaw ba la ñaanee rek dayu jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen jëf. li ci yéene L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf. ci euh, yéen i kaay yeeg El Hadji euh, Seydina Omar Cissé. Ah, ah. ahlan bikum bukki ba màttoon xalifa sàll ma nga ca ron tànki Barthélemy Dias ya te boo moytuwut fa koo nar xàmp mat info yéen a kaay moo ñu ko xamal turbine yéen a kaay ne faa di leeralal wax ji maanaam xalifa sàll fa nekkoon maire bu ndakaaru ñu àtte ko tëj ko kaso nangu maire yi ba ca loxom Barthélemy Dias it nag xam nga fi mu toll mooy maire bu ndakaaru ba pare nekki député assemblée nationale ñaari poste yooyu yëpp fañ koo nar a nangu ci loxom fa koy atu kaso ak juróom benn weer yoo xam ne fa koy tëdd te tëddoon na ko ba noppi dëggal boobu nag moo narta baax ci Barthélemy Dias ndax su fa nar a ñàkk ñaari mandaam yépp lii yéene kaay ne lépp mbiru njaga juuf la fa ñoo condamné Barthélemy Dias moo tax ñaari toogoom yi fa ñoo yànq maanaam ca daanu la jëm laas yéene kaay na ñaari mandat yu Barthélemy Dias yi ma nga ca danger de fam nar a mujj ba muy tudd baax de fin mooy yéene kaay ne Barthélemy Dias kay mi ngi ci guddi gu bët setagut bés a a yóbbu yëf yi ci yoon cour suprême li ñuy wax cassation l'observateur na ko hee gis nga cassation boobu ngay wax ay risque ma nga ca ndax su fekkente ne cour suprême fa rejeté maanaam dàq cassation boobu mu dugal su boobaa moom mooy ne Barthélemy Dias fori neew yàqu na yaxeet fañ koy jëlee ci mairie bu Ndakaaru dàq ko ca assemblée sur du quotidien professeur Ndiak Fall xam-xamam màcc ci wàllu droit pénal nee na fekk condamnation biñ condamné Barthélemy Dias nekkul Barthélemy Diaz fa ñoo nar a nangu mairie bu Ndakaaru ci loxoom dootu nekkati député ndax la daloon Khalifa Sall moo ko nar a dal ñooñu li ñuy wax xamuñ ko yaw seetal article yi tegu woon ci kaw Khalifa Sall ba gars yi a nangu mairie bu Ndakaaru ci loxoom article yooyu mënta tegu ci kaw Barthélemy Diaz affaire bi du benn 24 heures yéene kaay ne xanaa xamu leen ne même fekkee fa rejeté dàq cassation bi su boobaa tamit Barthélemy Diaz am na sañ-sañ yóbbu yëf yi ci ëtt attekaay ki sédda yaawoo su boobaa ñooñu bu ñu gisee ne faa bëgg ngeen noppal seen bopp faa bëgg sénégalais yëpp dégg ma gis ngeen man mii bougé ma meetar ca mairie bu ndakaaru bougé ma ñaari meetar ca assemblée nationale maanaam pour mu gën a leer man maay wéy di nekk maire bu ndakaaru te faay continuer di nekk député far force fara force doole mbaam neex naqari ndax yi ngeen di wax nii yëpp ci mbirum njaga juuf yi wàllu politique la waaye duut na yoon la gaa yi atte droit déedéet ndax ba léegi ñoom attekat yi wax benn preuve firnde ne man maa rey njaga juuf laa ko reyee naka laa ko reyee ba léegi wane wuñ ko te duñ ko a wane nag ndax daraa ca amul ci vox ànd ak Macky Sall farak moom nekk ca wetam maa leen di waatal ne konoon atte bii mbiru Njaga Juuf duñ ko mës a atte problème bi yëpp mooy li nekk opposant ànduma ak Macky moo tax ñu bëgg maa faagaagal lal ay pexe di tappale ci wàllu politique ngir faagaagal ma waaye su yeboo ñu noppalu liñ bëgg du xam de man nag maa leen di xaar député yeewi askan wi ak ponkal ñam njiitu yeew ñoom ñëpp ña ca gën a bëri ña nga woon kër Barthélémy Dias ngir wane seen ba yegg ca nañ ja mooy ne député yu màggal waaye député yeew yi fa ñuy toog ba gàpparliku waaye duñ jóg taxaw ndax fa ñoo wax ne kii niñ ko fale président assemblée nationale jaarut yoon jaay doole la kon ñoom reconnaître wuñ ko moom moomu nag di Amadou Mame Diop njiital assemblée nationale ma ngay woo député ya ci diisoo te bàyyi téesante ma ko waxee ca Les Échos yéen a kaay vox na fukki commission ya ak ñeent yu assemblée mujj nañ koo fal ci jàmm benn bokk yaakaar moo jël juróom-ñaari commission ak mbooloo ma ko dar rafetlu taxawaayam ñuy rafetlu nag taxawaay njiit réew Macky Sall mooy ay responsable APR ak benn bokk yaakaar yu bëri ci ni xam ne la falee gouvernement bi fa bëri ñu mer ba taxawal fa jir na gouvernement bi yëngatu na de ndax nañ doon séddalee gato ba fa ñu jotul seen wàll enquête yéene na ko Macky Sall moom njiit réew ba léegi fay wër kan lay jox communication wàllu jokkalante bi ndax mu mucc ay jox na ko fi xam ne ay sénégalais yu engagé ñoo ca nekk taxawal ko ña ngay sàkku ci Mimi Touré mu samp ndëndëm laaj réew mi 2024 nekk candidat wan Macky Sall na ko même soo ma jiitalut man faay bokk 2024 laaj réew mi wal fa jër yéene kaay na njiiti réew bu Nigéria Buhari fa yëkkati kaddu ci assemblée générale bu mbootaayu xeet yañ doon amal Amérique waaye kaddu yam fa wax presque africain yépp ko rafetlu ndax fa yëkkati kaddu wax ñi nga xamante ne ñoo nekk ay président ci réewu Afrique yi na leen bàyyi leen ñetteelu mandat troisième mandat faa bëgg ngeen moytu ko ndax fa yee fitna taxal réew yenn yi nguur jarut ko dëgg la nguur neex na waaye fa ngay am xel xam na yow rek mënoo jiite réew te fa am keneen ku ko jiite woon bàyyi nga ñëw kon fa nga war a bàyyi ñaari mandat fa doy sëkk bàyyi leen ko ngir yàlla waaye bëgg a nekk président à vie di buur di bummi loolu fa ñaaw laneen lu ñaaw mooy la am ca impôt et domaine bu Sénégal gii crise geraw bu amul app moo fa nar a xam de l'évidence yéen kaay na liggéeykat ya seen nekkin seen ëllëg ay agent ak wàllu suuf lii de moo jur coow la l'observateur moom di ñu xamal na njiit réew Macky Sall jël na ay jumtuwaay yu mag avion ak yeneen soldat si nga xam ne ngir ñu saytu suñ géej gi faxe ba ñu ñuy wax ay pirate duñ ci dugg waaye faxe tamit ba aar installation yu ñu def ci wàllu pétrole bi ak moom di ñu xamal ne série bi ñuy wax rebelle te Marodi defar ko jur na coow de ndax ñu jiite wàllu cinéma Sénégal fa aaye ne série bi du daw ndax kayit ya matut beneen ba ci topp fitna ja am Casamance daal ak série bi li muy wax daal ñoom d'accorduñ ci njiital Marodi nag ci biir yéene kaay bi ma ngay leeral na gis ngeen série bi dugal nañ ci lépp ñaar téeméeri million bu dawut Sénégal rek ñu dugal ko ci internet waaye duñ ko bàyyi noonu ka ñu yoon ko weer ki weeru ba na fàng na dàng ndax lam def fa leer nañ ba pare nag boole ci rëy garaaw yaw seetal benn commerçant daal ab policier moo ko arrêté ci otom di ko laaj ay këyit ak yu kenn xamul coow la takarnaase rek commerçant ba taal oto ba accéléré policier ba na ko taxawal mu bañ mu continué accéléré policier ba tëdd ca kàppatu oto ba jafandu ba dëgër commerçant ba accéléré policier ba ca kaw oto ba mu koy diri muy dardar yi ay meetar nag moom di ñu xamal mu yéeme benn xale lu góor daal ndeysaan bu am ñetti at fa dugg ci oto baayam daanu ca oto ba doxee fa faatu ñàkk ba kanam allah yëf yaa nga amee ci diiwaanu Linguère hmm, waa ma ne loolu de mooy tafaar dëgg ndax kenn du dawal oto am yéen rey nit waxuma la ak sa doom lii ci euh, yéenikaay yi euh, Shukran El Hadji Oumar ponk boobee sax nag mooy jeexal euh, xibaar yi jaajëfal nañu leen bu baax a baax yéen ñi farawoon ci wàllu déglu gi jaajëfal ko moom Serigne Moussa Kane ci xarale gi Mouhamadou Khalili ci partie digitale bi waaye nag du ñu fàtte waa rédaction ak waa production ci njàppandal gi ñaanal nañu leen mucc ak muccule jàmmi biir ak biti tawféex ak taysiir jàngeen jëfati. Le journal Ngoné Ndiaye